waaw ah, waaw Bébé waaw. waaw borom yaraax ah, a ngi nii de. Mm, euh, waaw. waaw. suñ waaw suñ am na moom. waaw waaw. Mm. waaw ginnaaw bi sant yàlla julli si yont bi sant suñ ñaari waajur di sant sama waa mbokk xombal maa ngi bëgg waa xombal yëpp xam sama cosaan di bëggeen duuf ndeng leen njéen jokkul ak la ko wër di bëgg waa nduuf bu baax a baax a baax waaw di leen bëggee leen ziar leen ñaanal jàmm di ñaanal sama yaay sama papa yëpp di leen ñaanal jàmm gudd fan di bëggee sama yaraax gi ma dëkk samay mbokk yaraax maa ngi bëggee ñëpp leen ziar sama dëkk ndooy ñëpp leen bëggee leen ziar di bëggee waat sama mbokk Fuuta yi maa ngi bëggee ñëpp leen ziar leen bëggte di la bëggee yow pap di la ziar la ñaanal jàmm waaw waaw waaw Youssou nag grand la boo xamante ne bu ñuy wax si moom du jeex quoi dañuy jàpp na comme téere nañ yor si moom rek donc lu ñu boolee moom du hasard nii sax man na ñu ko indi si école man si lu ñu boolee man moom du yàgg la quoi parce que moom bi ñuy dajee man moom géej dañ tëjee ñuy moom ñu contact pare ñu waxtaan xam nga suñu grand bu baax la mu waxtaan mu ne ma kaw laax laa dëkk expliqué ma ne ma sañoon na nga ñëw école yaraa xam nga mooy loolu yàlla dem ma boole ko ay grand ma grand booga far yaraax mu ñëw see comme dafa entraîné nekk grand bu baax na amaana samay combat dañ gis ni fi sonnee bu may dem ba pat damay ñëw topp sama ginnaaw ànd ak man barki Sëñ Fàllu moom li ma koy ñaan daal jàmm ak gudd fan te am nañ na ne ak yakin ne bu dee ndam rek am nañ yaakaar dañu am dam ndax lu ñu liggéey euh, xool nañ ne luñ xam naa lu ñu tax bi leer nañ suñu adversaire dañ ko ci combat bi billaahi waaw suñu adversaire na si sax nañ ko nii rek nii rek waaw non benn métier ñu ko sax xam nga euh, di nga làmb day toll foo xamante ni man laa jàpp sama bopp yàlla xam ne dama naa am combat adversaire yi may bëreel ñëpp naan dañoo mën a dañoo mën a bëre man seen seen vidéo du ma ko seetaan du ma toog di ko conseil ma ko conseil benn yoon par naa si sama xel du ma dem naa kii nii la mën a bëree léegi man damay jàpp ne chaque jour rek man li ma gëm mooy li ma andi li ma andi laay jéem a imposé daan dem ñibbi waaye lam muy andi ma man dérangé wu ma te yu loolu laa koy gëmloo tey adversaire am lu muy indi mu ko déranger. waaw bés bi comme yeneen bés yi rek tey dal xam ne làmb moom kenn du ko caaxaane quoi ndax bis du tuut bis mënut tuut li nga préparé jël sa xaalis def ko si adversaire bu dee xale la sa jox ko cër bi moom làmb koy bëree la jox ko cër boo ko joxee cër yàlla lay te am nañ yaakaar nag yaakaar ne bu tee jël temps rek cause combat bu doon laaj quarante mille sax am nañ yaakaar ne dafay génn la teey rek moom loolaa koy am bu teeyee moom barke Serigne Touba ak lu mën a xew combat bi duñu ci am peleñaa boo xamante ne dañuy déranger. que premier combat ak nekk bisu mercredi xam nga loolu day joué si gars yi quoi ñu yor liggéey jaamu rek yooyu noonu quoi day joué quoi moo tax waaye fekkoon na sambi la comme gars yi mafia yi ñëpp ay ñëw te gars yi ñëw sax dinañ ñëw xam naa ne dañuy liggéey ba wàcc 4 bu ñu wàccee ñëpp gars yi dañuy ñëw waaw. waaw autorité yi nag waaw am nañu ñuy jàppale si combat yi ndax ku si mel ni maire Babacar Mbengue suñu combat yi la siy jàpp euh, Fat Diouf euh, Sidi Bass euh, kii yi mu tuddati doc commandant Fall bu dëkk fii nii da jàpp suñu combat yi ak grand Assane si grand boobu nu tudd grand bi jàpp si combat yi tam dëkk fii nii grand yi grand yi ci jàpp quoi waa xam nga nag lamb lamb lam lambu xale moo demee noonu. boo nekkee commencement bi nii gars yi dañuy jàpp ndànk-ndànk ngay dem di màgg victoire ay di ay gars yi di am si yow yaakaar rek gars yi gën a commencé ñëw topp sa ginnaaw te li moom lii mu jaar ni ñun jaar nañ si moom garaaw ñoom mis nañ lii lu ñu lu ñu ñor daal leen la yàlla bu demee yàlla na ko yàlla may ndam lu see dugg mu ñëw toogaat xam gars yi ndam nañ bëgg gars yi duñ topp kenn ku du am ku du am ndam yooyu ñëwal gëm sa bopp éboo sa bopp ndax weñ boo gis la commencé dara mënul xëy rek màgg amul fenn xale mënu xëy xëy màgg da ngay ah Bébé Ama xaaru dara mi ngi war a bëree la 14 mais la 14 mai maa ngi jëm euh, Iba Mar maa ngi fay bëree ak spécial waaw maa ngi fay bëree ak gorofil bu jaam a bu jaam a gën waaw mu laa war a bëreel la 14 euh, Iba waaw man man xaadëggoo ba combat ni une semaine sax ma gisee boppam damay dem compétition ndax du ma yàq yàqal ma dara du ma yàqal dara sama lépp man dama nekk te dimanche la bu jàllee mbapat am si bi bu ñu fekkee xam naa xam nga mbër mu ndaw compétition rek nga am amoo leen du compétition ndax yàlla xam ne da gis sa bopp ndax su njëriñ ci victoire suñuy combat du ci sonn condition yi moo ñu koy may di wax daal sama mbokk waaw gars yi dama wax leen maire yaraax bi maa leen di bëgg bu baax a baax a baax a baax a baax ñoo jàpp si kombaay yi si di baas gisoon nañ combat bi lu si jàppee Thierre Makhulaay xam nga samay grand lañ yoo xamante ne ñu sonn si man Thierre Makhulaay am ma seen fay sama doom day Assane xam nga dafa nekk nit koo xamante ni ku baax man ak moom yàlla moo nu boole ko du question an asaat ni nga bu lu nekk dëgg rek da xam ne li dëgg la parce que Serigne Touba Mbacké nit la boo xamante ni man ay fàllagu dem ta soog a ñëw quoi tara mënu ma ba ma diggante ak moom ma bàyyi sa du ma ko bàyyi ndax ma koy jàpp man nit ma jàppee du ma baax la nit ku yaru la te moom it daa war am combat gars yi dañ bëri ak moom waaw te bu neexee yàlla bu ma jénee la 14 moom dina bëri bu neexee yàlla xam nga rek moom combat ma man dama war a ñëw jàpp si xam nga te combat am man bu ko may bokk moom bis man naa bëgg moom ma am bis ma topp ci ginnaawam barke Serigne Touba Mbacke ñëw saf si sap ni kaani di si ceeb ma ñoo saf ko ci moom xam nga nga lool da si ëpp solo quoi moo tax moo tax tax ma jox la mu béy ñoo lay fay Général TV alhamdulilah sant yàlla man Kër Relion laay wuyoo waaw lay fay waaw sunu mooy yoon sax waaw non yu moom bu dee contact bi ak xeex bi loolu moom noppi nan waaw est-ce que gan gan gan moo tere si quoi waaw gan moom nag seeraas la ñaaw dee rafet dee waaw bu neexee yàlla yu dina ko daan si jël bu set wicc waaw bu neexee yàlla no saay mooy lool xam na ko nii rek ñun moom soxla ñëw pour kii ko ñun lu intéressé gan na taxaw ñu bëre ak moom su bëree ñu daan ko su xeexee ñu duma duma ko daan ko nice waaw nice kay waaw am naa ñaar komba ñaar komba euh, benn victoire benn défaite waaw waaw temps yi nag moom dama xawoon tawat quoi yaa ma gën a xam yaa nice kay dama tawat ak santé am ah, maa ngi nice maa ngi kay waaw bi ma ma champion la waaw man moom kay démb la yaa ma gën a xam nit dara mënul su ah, supporters yi nice xam na nu mu tey nu mu nekk ak mercredi yi waaw jour yaa am dina xam ma premier combat day metti yaa am dina xam ñun lu ñu ñaan yàlla saay na génn su combat bi waaw d'office quoi waaw su daanee gan rek yaa ma dina xam waaw mbooloo mi dinañ ñëw yaa ma dina xam bu moom suñu grand frère la waaw suñu lépp la yaa ma dina xam aca waa Général TV yokkate si kaw si kanam rek yaa ma dina xam Eh, dinañ liggéey yaa ma dina xam dina dina kii ay champion ñu fi ñooy jéene fi yaraax barki alxuraan parce que gëm na ko waaw yow sax dana war a ñëw écrire ba yaa ma dina xam naaj kay ñu si yow di kontaan si yow gis nañ taxaw yi gis nañ lépp gis nañ li nga jëriñ si mbëri gis nañ mbëri Kaolack yi mbëri Dakar yi ñëpp nga yemale boo duggee si bi lu fu làmb am lu xew si làmb lu am si làmb da koy gis man Général TV sax dama koy cons moom Lamine TV man samay waay ngeen dañ ñaanal jàmm dañ ñaanal gudd. lépp TV ak jàmm rek. General TV, don't give me that, give me that, give me that,